la femme pour man c'est le maillon le plus essentiel de la société te diine da ko wax mais nos réalité de tous les jours da ko wone et moi j'ai tendance à dire que les deux personnes qui moo le plus marqué dans ma vie son des femmes les deux personnes qui m'ont formaté qui ont fait de moi ce que je suis c'est des femmes d'abord sama yaay ji ma jur nga xam ne euh, euh, c'est un c'est peut-être indirectement j'en profite pour lui rendre hommage parce je ne le fais jamais presque mais c'est une grande dame boo xam ne elle a beaucoup souffert pour nous beaucoup souffert je me rappelle euh, comme mon papa était un peu comme moi bi ñu ko radié pour la deuxième fois de la fonction publique c'était en 83 ñu raje ko parce que voilà il a été radié une première fois en tant qu'enseignant boobu moom ak ay ñoom Cheikh Béthio yi ñoo nekkoon di jàngale ci àllu Casamance bi mu dugg ci clandestinité politique ñu rajee ko alors après mu ñëwaat def concours ENEA cadre de Bambey génn liggéey en 83 pour une affectation qui refusait ñu ràjjeewaat ko une deuxième fois moo tax biñ ma ràjjee gars yi dem kër ga di wax sama <laughs> sama yaay daf leen ne une tradition chez <laughs> miin nañ ko. biñ ko radiéwaatee ça a été difficile évidemment parce que c'était un couple de fonctionnaire moyens ma mère était assistante sociale pas bi nekk animateur rural donc ça été très difficile et il y avait qu'un salaire à la maison et plus tard quand j'ai regardé le bulletin de ma mère je me disais ça c'était un salaire de fonctionnaire donc elle la tenu et chaque fin du mois su fayee ko day woo paa bi ba ci biir mu jël salaire bi jox ko ko ne ko bëgguma ñuy xalaat ni man maay jënd ravitaillement ci kër gi donc so suñ koy jënd ci boutique bi yow yaay dem jëndi ko et ma mère je ne l'ai jamais vu mu takk sax caq përëm waxuma laa ay or wala ay bijoux yu demee noonu et pourtant c'était une intellectuelle génne cadre de de banque bay jàng mënoon a def li jigéen ñëpp di def et dans un environnement qui n'était pas facile parce que ku juddoo xombal yaroo fa màggee fa. dem sëy Casamance dans les années soixante euh, dix neuf quatre vingt nga xam ne avec le le le le l'écart culturel les incompréhensions qui ont produit d'ailleurs la crise kon connaît mais cette femme m'a beaucoup marqué te jàngaluñu lu dul liggéey jub doylu surtout doylu et jusqu'à présent elle mu marque parce que ñii ñëpp xam nañ elle est imperturbable parce que man si j'avais une mère fragile j'aurais raccroché depuis longtemps mais lu munti am ak lu coow li bëri bëri bëri bëri ku ko wax ñaari phrase lay lay lay ciy teg euh, il suit son destin lu yàlla tudd noonu la elle ne dépasse jamais ça imperturbable et la deuxième c'est ma grand-mère paternelle qui était également une très grande dame elle s'appelait Fatou Bodian li ma xam yëpp moom ma ko jàngal on est rentré en Casamance en 82 parce que moi yu ne né à nitu Thiès la <laughs> ci benn boor bi ah, waaw saa Thiès la <laughs> maa ngi booy ñoo bokk dëkk <laughs> donc euh, et quand on est moom la ñu fekk dañu ñibbisi mu tombeek nawet li immédiatement mu yàttal ñu kajandu xaw ma ndax xam ngeen kajandu mooy li joolaay di béyee ne ne àll ba donc de 82 à 93 amul année boo xam ne ànduma ak moom dugg ci àll bi bay la l'année mu yoon une femme brave liggéey su jógee tool ya toog na ci taatu làmp bi di saaf gerte dem jàkk ji julli elle était tout le temps de blanc vêtue et bi mu demee ba sentir ni jege na dafa ñëw fekk sama yaay mu ne ko kat yi dégguloon olof bu baax nag mu indi perkaalam mu ne ko man bu dee buggul kenn jënd tissu bii lañ may suulee donc elle n'a jamais voulu dépendre de quelqu'un de sa vie jamais et cette femme-là également m'a énormément marqué dans ma vie jàngal na ma liggéey jàngal na ma njub et jusqu'à la fin de sa vie ce qu'elle disait